xol li ci yàlla wax ni bu bëggee gaañ nit xol ba lay def ndàbb taf ko bën bën ba war a yitte mu fatt ko moo tax chinois yi di wax ni mboolem cër bi leen gën a ci nit mooy xol da xóot gaa tax xóot lu nekk ngi ci xol lu nekk ngi ci xol lu nekk ngi ci lu nekk ngi ci kii maanu yàlla piir la wallaay ndénkaaneem piir la